Euh, alaikum wa Sénégal man la soxna Oulimata Guiro euh, euh, investi ci liste Sam sa aussi membre du parti Boupur, représenté son éminence cher Sidi Mohamed Moustapha Sy Al Maktoum ci investiture bi ndax ñun dara dans député ci parti nationale 2017 2022 tey aussi ñu tabaat ma def ma ci liste maa ngi ñaan yàlla rakkaar bi mu am yal na ko yàlla gunge yal na ko mag ñi gunge ñoo ko dénk ñoo ko yen kon suñ ko yenee dinañ ko dëppale ñaanal nag Barthélemy aussi mi nga xam ne moo nekk tête de bi yàlla may ko mu am ndam li tax ñu ñëw fi tey ci local yi dañ fi ñëwoon yàlla defal ñu ndam ñu ñëw ci biir gis papaam nuyu ko mu ñaanal ñu ñu am ndam moo tax ñu ne waat ñu duggaat ci biir nuyu ko mu ñaanal ndax yàlla defal ñu ndam yaakaar nañ ne incha allahu rabbi sénégalais yi duñu juum ndax ñun demuñu pour bloquer kenn mais dañoo dem pour cohabiter dañuy dem pour Sénégal ñu xam ne njabootu Sénégal yi ñoo boole seen doole tey pour mën a yor Sénégal Sénégal benn nit mënatu ko yor il faut mu nekk benn ñëpp boo xam ne bu bu dur bu dëgër boo xam ne Sénégal moo ko ñor ñu mën koo saytu régler problème mu sénégalais jigéen ñi nag laay tàllal loxo man Oulimata Guiro waaw ñun dañu kontaan ci Barthélémy Dias sunu maire wax dëgg yàlla dafa marqué territoire am Barthélemy un grand homme un homme de valeur ak Bougane wax dëgg yàlla ñoom duñu ay nitu caaxaankat doxuñu naanuñu duuli ay praan di duul mbaa ñu naan sulu sitin di wër salon de massage non liggéey dañu xam waaw ànd ak Ndeye Fatou Ndaw nekk ci ginnaawam aram ak Margot sunu yaram neexul ne kon ñu toppoon convoi bi waaw fii ay doomu gaynde ñoo fi nekk ñeme jam-jam jërëjëf. damay sant di gërëm yàlla di kontaan ci Khalifa Ababacar Sall mii ci ñëw Amitié 3 tey man nag citoyenne u Amitié 3 la monsieur Khalifa Ababacar Sall futur député incha allah yal na yàlla may ndam ni ni ngeen tout bi

ñun euh, ma ngi nan ñun waaw parce que fallu nañ ba paré inshallah euh assemblée dafa am señ señ pour saytu li nga xamné mom le gouvernement bi di liggéey dina am projet yo xamantane projet yu état la moy programme état yi te ñëpp xam ngeen jafé jafé collectivité locale yi tay ñi nga ànd avec le maire que je félicite au passage parce que équipe bi fi nek ñi ngi def liggéey bu mucc ayib surtout mom Alioune Tall am expérience ko xam lu muy et toute l'équipe municipale quand je dis toute l'équipe c'est l'équipe plurielle quelle que soit la sensibilité politique gis nañu ñoo xamante ne parti bokk de ñoom coalition mais doxalinam du ma ci tax na la bi ci des pour les grands projets au niveau des programmes de l'État nous, à l'Assemblée, de dañu veiller parce que nous devons voter les lois di voter li nga loi de finances budget parce que normalement nous nous l'élection élection le 17 dès le 1er décembre inshallah nous daañu jëgma ci loolu daañu saytu la majorité nous moom nañ bëgg waxuñu rek dem assemblée mais avec une majorité pour xamante contrôler ce que le gouvernement bi faire di ànd ceex ñoom di ci waxtaan ak ñoom donc loolu dafay déjà loo xamante ne am position confortable bu ñu mën a jëlee engagement yi li ci des bari au niveau de Mermoz Sacré-Cœur je pense que tey li ñu bëgg njëkk wax mooy il n'est plus question que état di def la nga xam ne mooy joxe suuf te moom maire du siéger ci commission domanial loolu dañu bëgg a taxaw ba nga xam dañuy def benn projet de loi bi nga xam ne permettre le maire pour l'intérêt des populations mu xool plus luñ fi seddale donc c'est pour vous dire que amna na yu bari yuñ ci def mais bi nga xamné ne ci njëkk moy le règlement intérieur de l'Assemblée. bari na ci ni muy doxalé lu bari luñu wara xol donc c'est pour vous rassurer que sàmm sa cadre fas yéene na joxante loxo à population Dakar en tout cas pour li nga xamné moy intérêt suprême Dakar na, loolu rek moo ñu a

Si l'interposition a pu prendre forme, c'est parce que c'est de grands hommes qui ont accepté de faire beaucoup de concessions. Parce que nous avons cet intérêt. lenn nañ aujourd'hui, c'est le Sénégal gisuñu leneen lu Sénégal mënoon nañ dadi daal ne Dakar bii ñu nekk sàmm sa kàddu pas ñu à ci bannière nous mais toko waxtaan ñu déggoo Sénégal bu ñu Sénégal nag Dakar ca la bokk donc je pense qu'aujourd'hui, et puis c'est des hommes expérimentés, ce n'est pas des stagiaires qui viennent d'arriver au pouvoir. Donc c'est vraiment pour vous dire que euh, wóolu nañ leen daal ñi ngi seen gannaaw toog nañu donc ñun la nga orientation les grandes orientations ci loolu lañu et li ngi ñu gis amul kenn ku ci sa euh, parti waye da nga am décision ñu ne la sa parti li la wax ñu daal di mu rafet donc vraiment dañuy sante kilifa yi et a aussi la presse euh, nga xamné ne nga accompagner di véhiculer dafa bax yu melni buñ koy def ngeen mëna a ràññee déjà ñun ni ñu àndee boobu gis ngeen ñi ngi dox ambiance waxa askan wi sensibiliser leen recueillir doléance lool rek nañu def lool nak nañ fas yéene def ci 19 communes vraiment ñu ñaan yalla ñu mën ñu permettre ñu def en responsabilité parce que nous sommes des responsables duñu jël suñu njaboot gaañ leen ba paré war leen yóbbu hôpital koku duñ ko def voilà jërë ngeen jëf